asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokk yi bokki jullit yi bokki taalibe yi ngeen di nuyu bu baax di leen siyaare di xamle rek jataay bi li ko waral dama am lu ma yónni sëñ Cheikh Mahmoud Bachir mi ci mboolem bokki julli yi bokki taalibe yi bokki dëkkandoo yi mooy kàddu yu mu leen war a yoo xam maa ko digal yónni ko ci yéen mu bëgg ko jot mu bëgg leen bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi al amin sayidina almakin wa ala wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin ci ndigalul sëriñ bi ak kàddoom te ñu xeebu ci lool ñu fas yéene jéem a jottali bokk jullit yëpp ak bokki taar bi ak bokki réew mi ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonte bi di sant sëriñ Touba di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha mii nga xam ne moo fi sëriñ Touba tey suñu boroom yàggal ko fi lool te kattanal ko tamay ko ak wér ba mboolem sumb yi nga xam ne am na ko ci liggéey Serigne Touba suñ borom may ko kàttan ak ba mottali ko kon mi ngi nuyu bokk jullit yëpp ak bokk taalibe yi ak mbokki réew mi mu seqal réew mi yëpp ci weer wi ñu tabbi jéem nag ay kàddu yoo xam ne kàddu yu fàttali rek la ni ko suñ borom waxee ci alxuraan fa zakkir fa inna zikra tanfaul muminin fa zakkiri nafaati zikra kon fàttali rek la doon ndax mboolem kàddu yi nga xam ne moom la ma yónni ngir ma jëme ko ci bokk taalibe yi nga xam ne ñoom la sañ a sañ leen tere te mooy ñu yaakaar Sëriñ Tuubaa waaye mu nekk nasiixa nag ci mboolem umma islaam yi bépp waaye jëm nag ci ñu bokkal réew mi yëpp kon sëriñ bi nee na ginnaaw bu mu leen sante gërëm leen ci li su lépp di leen ñaanal nañ leen xam ne waxtu wu nekk mi ngi leen di fàttaliku ci ñaan ndax loolu mooy li ko fi bàyyi li ko fi bàyyi itam nekkal fi Serigne Touba te al ulama warasatul anbiya kon faaw muy digle faaw muy fàttali ndax loolu mooy li ko fi bàyyi digle gi ak fàttali gi nag ni ko Serigne Touba daa waxee rek wooteloo nañ ma woote naa ñi wuy si ñi wuy si wàcc nañ maa ci des ñi wuy si wut wàcc naa ñoo ci des kon moom mii itam li muy wax. ndigale lu mu jëme ci ñëpp loola nag mooy adduna suñ borom ni mu koy faral di waxee moom mooy def mooy dindi lu ne nag moo xam la tax mu def ko fii ñu toll ci jamono nag dañoo toll ci jamono yi mbas moo xam ne adduna sépp la daj boo demee ci mbind sëriñ bi am na ci xasida li mu amul wa bàyyi loolu mooy lii amaat rek mooy atu mbas yàgg na fi suñ borom doogalaat ko te moo xam lu tax mu def ko ndax suñ borom wax na ci alxuraan ne wa ma asaabakum min musibatin bi ma kasabat aydikum kon doomu aadama lu ko dal rek na xam ne moo ko teg boppam kon nag lii nga xam ne balaa la bu suñ borom wàcce ci kaw suuf suñ borom nee na lañ ci war ñun ñëpp mooy delluwaat ci suñ borom te jéggalu ko def tawassul ci moom loola looloo waraloon itam mu digaloon cheikh Serigne Mamour Mbacke ibnu cheikh Mahamadou Fadil wax ko mu sant bokk jullit yëpp. ak bokk taal bi yëpp képp koo xam ne mën nga ko nga wàcce ab kaamil alxuraan ngir eh, def ko tawassul ak jégglu tuub delloo ñëpp dellu seen borom jàng xasaay di Serigne Touba yi itam ngir jàmm mën a wàcc ci réew mi wàcc ci àdduna si ndax xasida yi xam ngeen ne xëju ci dara kon ci loolu Serigne bi nee na mi ngi ci soññ ñëpp ndax Serigne Touba ñëpp xam na ni ab toolam moo doon alxuraan lépp lu masaan defe moom la ci jiital kon loolu na ko ñëpp fàttaliku xasaay itam yi itam dafo ak jalbu moo ci ëpp doole lépp kon loolu itam nee na ñëpp gën a góor góorlu ngir suñ borom mën a wàcce mbas mii nga xam ne moo ne ci kaw suuf kon nag ci loolu nee na mi ngi ci soñu bokk taali bi yëpp di bëgg ñëpp gën a góor góorgóorlu daal li nga xam ne nag suñ borom moo ko santaane ndax eh, alxuraan dafa wax ne atiu llah wa atiu rasula wa ulil amri minkum ulil amri minkum nag nee na mooy ñim dénk adduna si loolu dafa am ndax Sëriñ Tuubaa dafa waxoon ne yaar moo fi nekk abdan aataynaahu rahmatan min indina wa allamnaahu min ladunna ilman ak inna makkannaa lahu fi l ardi wa aataynaahu min kulli cheyin sababan kon adduna dafee nekk alaaxi alaaxir na fi am ñu dénk ñu suñ borom dénk mbirum diine ji loolu moom tey kenn jiitoo ko ci am ñoo xam ne ñoom la dénk wàllu adduna gi kon nag nee na mu ngi fàttali fàttaliwaat ñëpp ñi nga xam ne ñoom la suñ borom dénk wàllu xam-xamu docteur mooy ñi nga xam ne ñooy atibaaw yi di di ñi nga xam ne ñooy fajkat yi di docteur yi sëriñ bi li santaane ci li nga xam ne wéer digg la gis na ne kat ñëpp a ci doon góorgóorlu waaye daa dem ba ñëpp jàpp ne jeex na ba tax ñëpp bàyyi di ko loola nag musiba rek la jur. kon nag nee na mi ngi santaat taalibe bi yëpp ñu gën a góorgóorlu ci li nga xam ne ñoom santaan nañ ko ñoom ñi nga xam ne ñoo ñoom la suñu borom dénk loolu nit ñi gën a wattandiku ci lépp loo xam ne jàpp nañ ne mën naa tax jàngoro ji gën tasaaroo ndax li xew kat ñëpp gis nañ ko te suñ borom moo wax ci alxuraan ne fasalu ahla zikri in kuntum laa ta'lamuun te mu fassiroon nii ni ñu koy firee dañuy wax ne eh, ahlu zikri bu dee ci wàllu xam-xam mooy médecin yi kon sëriñ bi neen na leen ci ñëpp diglu ci ñoom ñi nga xam ne ñoom la suñu borom jagle loolu tey ñu xam ne suñ borom li tax mu wàcc leen fi ci kaw suuf looloo tax ndax yonent yàlla Moussa wére dina romb ak ñax ñax ga wax ko ne ko boo ma naanee wér mu dem sukk fa mu doon sukkaat eh, suñ borom ñu tegtal ko ñax ga mu dem ñaan ko mu dem naan ko wér di ga gën a yokkuwaat mu dellusiwaat sukkaat. ci kanamu boromam suñu borom xamal ko ndax docteur am na ci dëkk bi kon loolu suñu borom da ci doon jàngale kon nag ñun suñ lépp dañ ko dénk Serigne Touba yaakaar ko àddina ak àllaaxira mu dox suñ diggee lépp itam te xam ne itam mboolem lu mat a fàggul ni ko sëriñ bi di waxee Serigne bi fàggu na ko te bayiwul dara kon loolu li weesu rek wane na ko ndax màggal gi ñëpp ku ne amoon na ci tiitaange ñëpp am ci jaaxle waaye. gis ngeen li ci suñ borom def ndax sëriñ Touba kat suñu borom far na ko ci lépp màggal gi ñëw na lañ ci doon tiit yàlla def na dara amu ci te sëriñ bi waxoon na ne na ci seenum ko waxee neewoon na nag loolu mbirum sëñ bi la mbirum sëñ bi nag mbirum biir la kon du lu ñuy foyee ka kafe nañ ko bàyyeeg sëñ bi sëriñ bi nag jëfandikoo ne ci am ci war a jëfandikoo kon loolu doy nañu sëkk positif kon sëriñ bi nee na mi ngi soññ taalibe yëpp te xam ne lii kat. moom li mooy sant leen ak digal leen di ko jeexale rek sëriñ Suwaybu bu Mbàkke dafa am kenn ci mag ñi da ko waxoon ne ko man de Mbàkke dama amul jaaxle ndax damaa gisoon suñ suñu waaja de bañoon na docteur lool mësta nangu docteur te yéen ma gis ngeen bëgg docteur lool sëriñ Suwaybu bu ne ko kooku de daa bokkutu ñun ndax koo xam ne bu ma sàñ jàkkaarloo nit da koy wax na ko jàngoro bàyyil diw mu dem ndegam mënuñ loola nag kon nañ ko doyloo te dénk ko suñ lépp te te te jéem a euh, dem ci docteur yi di ko digal nii ñi moo tax njabootum gépp ku masaan wér di seeru njaboot ba leen laa ñaanal dañ lay yaba ci njaboot ci ci ci docteur yi ba noppi doo ci jëfandikoo lañ ci jëfandikoo tàggat la moom ndax Serigne Touba loolu ci def kenn xamul lu mu doon peste am na koo xam ne. ñëw na ci njaarim euh, sëriñ bi tàggal ko peste ba te peste xam nga ne ku mas a jege ku mas a jege rek kooku day faatu waaye ba mu jubee sëriñ bi kooku da ko wax te ñëpp xam nañ ko man damaa tudd turam daa da ko wax ne ko bul accès ndax damaa peste sëriñ bi jël loxoom teg ko ci dënam tàggal ko peste ba ci kanamu ñëpp muy ku ñëpp xam bi mu faatoo yàggut kon sëriñ bi mën naa tàggal nit ak jàngoro di ko jeexale rek la suñ baay suñ bay Babacar Diakhate waxoon di ko defaat ci suñ digge sëriñ bi ndax moo fi nekk sëriñ Tuubaa te Cheikh Ibrahima Faty daana wax ne képp ku fi nekk sëriñ Tuubaa suñ borom dana ko rus kon nag la suñ bay jaxate waxoon rek laay waxaat ci tuur taali bi yëpp di ko wax sëriñ bi waxal nag ci mbas mi sa nit ñaa ngi jee bu ab sàmm ne cellu jur gépp jeex bu jur gépp jeexee lu muy sàmm kon ba ñi ba ñuy dëddu kër bàyyi ki ndey ndey di ñëw wutu mu ca tax mbaa kon li ñu wut si kon ba sëriñ ba xëy rek su xam le ne suñ boon xamal ne ma yàlla mi fi àccoon jàngoro jeexal na ko kon nag na suñu xeet dal xam na bu suñ bi yëkkatee kàddoom boo ko boo ko xalaatee rek suñ boon mën na ko fay jeexal waaye nag nee na mi ngi soññaat taalibe yëpp di soññaat bokk jul yëpp ñu gën a góor góorgóorlu gën a fagaru gën a wattandikuwaat li nga xam ne digle nañ koy ñëpp ànd ci ñoom suñ kéemtalaay kattan bu ñu ko defee rek ci la ndimbal yi gën a gaawee wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu